tàggatoo mooy di santaat yàlla di ñaan yàlla mu fayal ñu Cheikh Ibrahim ñu doon wax ci ku naqadee wax waaye li may fàttalil ñi may déglu ci ma mag ak ña ma gën a nekk xale yëpp ñoom ñëpp boo ma booleen boole nag si ma yaakaar man maay maa ngi tobb ci ñoom maa leen fàttali zakkir fa inna zikraa tanfa'u nañ di fàttalante ki gën a xam na xamal ñu xamul boo xamee ba mu yàgg it léeg-léeg fàtte mën na caa dugg ngay fàttali moo tax baay e, ba mu njobootam gu sell gu tedd googu di jàngi daf leen dénkoon ci arab yoo xam ne ne leen bu ngeen demee na ngeen góorgóorlu ci gën a amal xam-xam te bu leen xam xam-xam nga xam ne boo ne xaala rek mu jeex da ngeen ay xóotu xóotal xam-xam ah boo ne wamaa yantiqu anil hawa nga xam grammaire baag xam la caay fekk balaa xam la caay nangam-nangam na ngeen gën a góorgóorlu te bu ngeen góorgóorloo nag na ngeen jël principe islam ngeen taxaw ca ñu ne ko lan mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak ci nëbbu mu ànd seen nooy noxi gi ñëw na ànd ragal yàlla noxi gi dem na ànd ak ragal yàlla ndax xamoo fan la ko yàlla téye piis rek bu jaaykati tiisi bi yore jaaykati tiisi mooy latt rek day natt xam na yum romb lu tax daggut foofu xam ba mu yàgg mu kettit mooy xaat ma jeex na <laughs> mu ne bon seen ragal yàlla na seen noxo seen kam-kàttan na ngeen téye ci téereb yàlla bi na nag bi an yakuna alquran nusba ayunikum na alxuraan nekk seeni kanam bu mu tàggoog seeni bët mukk mukk na ngeen xam ne mooy suñ constitution xamuñ lu réyee ni moom te dootuñ xam lu réyee ni moom moo tax mu dem ba ca biir ne xanil mar illa tasal wasal xal te bu ngeen demee ngeen tànn ñu ngeen àndal boobu nag moom a ci gën a amal solo ci dénkaanem tey bi maa ngi dénk xale ñu seen ñu ñu àndal innal xarini bil mu xarini yaxtadi loo baax baax bàyyi xam na feneen fu ko bàyyi joxe misaal demal ci jaaykat yi parfum rek nga den ak moom muy jaay léeg-léeg kenn ku ñëw rek xam nga fu mu mosal ko affaire yi tiis ñëw ci yow boo génn ñu ne ah, sa los ko nañ neex na fekk moom amul los ko nañ waaye dafa toogoon ci kuy laye los ko demal ca tëgg ba bii ma amoon bi ñu ëpp xam nga ëpp yooyu der laay doon der kii bay yow boobu nga fekkee avancé na bi ngay windeel noonu yée boobu dafa avancé bu loxo yi bu loxo yi laa boobu fekkee ko bàyyi mu ne boo toogee ci wetam sa mbubb lu mu rafet boo demee ñu ne yow sa mbubb mi lu ko bënn fi yëgoo ko sa war a kon nag nañ di toog ku mel ni Cheikh ak ku mel ni doomu Cheikh Ibrahim ak ku Cheikh Ibrahima koo xam ne yarul la waaye ba nga ñëwee ku mel ni principe yi ñu waxee fexe nga ba ko ci moom ci wàllu na muy jullee ci na wàllu na muy xoore yal na bul góor-góorlu na ba sa feyal sa jëf yëpp di jëfi Muhammad ma foolu ka seen jëf yéen na soppeeku jëfi Muhammad xaal bi ngay dund état bi ngay dund ak tamise bi ñu am ci yow mooy da ngay dox wala da ngay taxaw wala da ngay tëdd wala da ngaa gaganu wala yaa ngi sa njaboot wala nekk ko sa njaboot baay sa roon maam say roon morom kullun yusiru ila mahabati rasul sallallahu alayhi wa rasul ñu ngi leen ay siyaare di leen nuyu ay ndaw ngeen ñu leen ay ñaanal yàlla def leen mag yàlla may leen secret yi nga xam ne mooy jokkale doom aadama yi ceyo koweya Cheikh Tidiane Chérif da daan wax ne inna allaha yuhibbul mahalil umur wa yakrah sifaha yi Seex Tijaan mu ne yàlla bu gën a ñi borom hitte yu kowee mu ne bu sa hitte nekkoon yéeg ci asamaan sax da nga yéeg ci asamaan yonent bi ñoo feetli ko ci beneen hadis Omar ibnu Xattaab bëriwul lu mu solo waaye moo solo hadis boobu innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa see hitte bu doon seetal eh, RDW jigéen jafa gën a rafet nga ne da nga ci jot da ko da nga ko jot ah Dakar net kan Dakar net <laughs> net wala xoolal ci àdduna bi poste boo bugg a àgg ëllëg ci wàllu xam-xam ci wàllu xam-xam nga ne man danaa ci àgg rek danaa ci àgg kooku nag mënoo ko lu dul jaar ci ku mel ni borom leer gii nga xam ne bu ne liitalee ba nga gis dalay defal feles xam nga feles yi dégg ko ci zone mi xewa léegi Facebook borom leer dëgg-dëgg kaandak moom moo lay defal ay feles doo réer mu ngi mel ni boo demoon Amérique léegi am na Sénégal sax boo naree réer defal hôtel bi nga dëkk rek moom ngay programmer ci oto bi rek mu naan la jaaral place am jaaral place am wàllu yàlla dëgg boo àndee moom moo lay defal al feles ay feles fii maqaama fi ne boo fa jàllee yaa ngi dem maqaama sangam boo jógee foofu yaa ngi dem nangam boo jógee nangam yaa ngi dem nangam fii kat boo fa tolloo ñeent fukki ni ñetti téeméeri nit ñoo fa tolloo xaccoo xaccoo affaire bi waaye boo ñëwee ba fii ñeen fukki nit wàññeeku nañ ba mu def ñeen xam naa examen maa ngi ci examen ENEA bi xëy na <laughs> fii boo fa tolloo ñeen fukk la fii boo fa tolloo kat juróom-ñaar la gaa yaa de fii boo fa tolloo juróomu fa des fii boo fa tolloo ñett fa des fii boo fa des la kenn kenn kooku mooy fardul jaami Cheikh Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu ngi ziare ñëpp ñu ngi nuyu pays bi yëpp di xalifa bi di wax alhamdulilah ci delsi gi mu delsi yàlla gën ko may wér gu yaram doomi baay yëpp góor gi jigéen mag daw ndaw yéen ñii yàlla teral leen jamono bi tajaliyaat bi gën a am solo te tajaliyaat boobu mënoo ko amee lu du ca markas ba markas mooy nii lii mooy markas markas mooy centre centre bi laa la waxoon boo fi bayee ko nii ngay def rek nii boo ñëwee def ci ñett ña dem ba yaa nga dem ci juróom-ñaare def ñett ñaa ngi nga demaal ba mu yàgg nga dem ca yi juróom yi la fii juróom fii juróom nga demaal ba mu yàgg nga dem ca déedéet ñeent fukk ya ni muy doxee laay wax nga demaal ba mu yàgg nga dem ci ñetti téeméer ya soo mën a dem rek foo mën a ñëw rek fii fii la jom fii fii la jëm la jëm centre baa ngi nii ku bëgg a noppal sa bopp xoote mi nag jamono bii ñu dool na ku mu nekku ci centre bi mënulaa taal kenn bàyyi nag moo toog fii ci centre bi te kenn dootu ko fa fekk xanaa ku ko roy ku moom ci ñun laay wax nag ne foo ngeen dégg ma maa ngi ci bàyyi nga ma doon laaj moo tax ku dul moom nekkul fii ku newut fii nag mën na laa sonal mën naa jël sa alal mën na laa def loolu ne mën na laa maaj loo mën naa jël sa temps waaye doo jëriñu doo doo jëriñe yal na ñu la def ñuy jëriñu di jëriñe teela tëbb ñu ci barke ki ñu doon waxtaane tëbb ñu ci leeru ñu baax ñi ñëpp ñuy noy këri diine yëpp bàyyiwuñ kenn ndax ñooy këri leer yi ñoo tax Sénégal nekk ci jàmm ni maa ngi bàyyiwuñ kenn di leen ñaanal ñoom it fu ñu toll yàlla def xiwal waaye nag yéen ñu leen naa ñaanal ci tëjaleyaatu Cheikh Ibrahim ci mbaax ak Ibrahim te leeral naa leen ci biir waxtaan bi ne lu waay soxla rek mu nga fa moom xanaa kañ yow yaa xamut bi qadri sidqi kulli muridin wa bi qadri sawqi inni uridu minka bal wa taalam inni uridu ba ca xëy li sooban fan wa xëy li min kulli seen xayroo ba ca moom noonu rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah